asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu tahu habu yara yara sahu ya mani ki lip tafa bi yabu wasu kun bin ana da ki aslam ajilan bilu si mahmadin ha ta kamun dina kana ngi wa wa min yaqin ya wa wa sama wa ali wa masakin ajib hasan di mahmadin wa tarfi fa na sama ga bon sama sama amin asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu waa alhamdulilah wa wa alhamdulilah ñëpp ñu ngi leen ñëpp xam naa Modou la kooku laaj laaj bi ne man huwa Cheikh Mouhamadou Moustapha xalifatul awwal Cheikh Mouhamadou Khadim laaj la boo xam ne kon dana dëppoog ñetti fan yi baax la yi mu fi bàyyi ko woon jëm àjjana kon danañ ko jéem a tënk wala ñu yaatal ko. Cheikh Mouhamadul Moustapha mi ngi gane àdduna ca Daaru Salaam Daaru Salaam gii ci wetu Touba nee ñu bés bu jëkk la ci Muharram bitu Muharram la ca Tamxarit ga am nañu wax loolu xam ne sëñ Masamba Fati Bousso moom la maam Cerno yónni mu mu wax ko sëñ bi am nañu wax loola am nañu ne sëñ xon ndóoy moom lañ yebal mu wax sëñ bi am nañu ne ci bisu ñetteelu fan la ca tamxarit wax ngénte la dajeeg yow ma asura ba bu kër ba ñoo lam jób ci taxaw fàttali ne sambar nee na ko Cheikh Mouhamadou Moustapha mi ngi gën a àdduna ci guddi fukk benn ca ca tamxarit wax man ma judd gin guddeeg ñaar ko jëm ñaar ci ca kasu rajo ci ca rajo sëñ bi sëñ soxna kon bi muy feeñ dëppoo naag sëñ bi di gis mandat ngay ngay dëkk mu sell bi muy Tuuba nee ñu ci xalwatu la dañ fekk sëñ bi booba sëñ bi joxe tur bind Muhammad suñ buso bi ak sañ moo jaara gam-gam li ko ba xam naan ñu ñaan ñëpp Muhammad lañ tudd buso sëñ Muhammad jaara ku sëñ sëñ bi di jublu ñu def ko noonu sëñ bi di di sëñ bi génnee ci xalwa ji woojaw nee ñu mocc jokk Moustapha ja Mouhamadou Moustapha loolu sax ndax sax ñaan si ma ko ma dina gane àdduna sëñ sëñ Cheikh Moustapha yi tuddee ko bàyyam ba sëñ Mor Jaara ngir fay ko turam wax sama bàyyi nee na nee na nee na mu si bëgg Madina ak sëñ bi waay maa maa ngi fàtte turam wax nañu dëkk Mbàkke gi sëñ Mor ma natti la tudd rahimahullah ku bëggoon si ma ko Madina ñaar dañoo nekk fi moom ba ñëpp dem mu des fa ñu ñoom ñett suñu ko ma dina sama baay ak suñ boobu suñ bi ne suñ bi ne bëri daal ne ah ñetti moor li kii man la ndax nga xam ne kon suñ bi suñ suñ moor tudd sama baay tudd suñ moor suñ boobu tudd suñ moor kon kon suñ moor jaara ja jëkkul lañ leen tuddee ci kon ca waxee na ni Cheikh Mouhamadou leen baaraam ca ca ñaar fukki juróom ñett ya ci diwaanul uula ci la gën a ci àdduna seen woy jur woon nag ma nga woy ji borom bi ci guddi àllarba nekk ko nag ñaar ci koor wa mille trois cent dix ci diggante gi soxna amit tëloo mu ko woon ci wàcc liggéey ci ci dat dat boobu ñu ñaar ñaar fukk ñaar fekk ci kër boobu wax nañ ne ci dañ ko nekkilee suñ bi dafa jóg jëm ca gillikaay ba ba jàgg mu mu mu dal di wàññi ko daal di wax ne kat jigéen ñi sama borom de dafa soxla sama ruux bi waaye nee na kenn kenn ci yéen ñaar soxna Awa Bousso soxna ñu tuddoo man man damaa wutu mais soxnaam tulool ne ne ko man de xam naa ne sa benn fan moo ëpp doole suñu junni fan kon kon mën na maa dem te nga toog sëñ bi kon daal ne ba xam ne ba ba mu dëddee wax na ne loolu mën na ndox suuf laal ko sëñ bi bu ñu demee fekk ko sëñ bi naafil la kon kon xam ne ne kenn kenn du ko wax dara kenn du dog naafil la ba ba mu noppee ñu wax ko ko bañ liggéey fekk nañ soxna sa naqu waaye da koy indi ci guy taxe kooku moom moom lañ fi jëkkëram ji naa moo tax naan ko guy taxe di ko barkeeloo kon kon ginnaaw mu bolool nag soxna aminte loo nelawee ñu jël ko wax nañ ne soxna aw lañ jox sa sëñ sëñ baara si ndiir jox ko jox ko soxna as burikan woy juróon sëñ Moodu maa mënoon ci xadd gaawaan ñor ko kon kon waaw wala boog wala boog wala boog soxna soxna soxna aw busa moo moo yoroon sëñ Moodu Maamun ak sëñ Baara wax nañ ne wax nañ ne wax nañ ne ginnaaw loolu si suñ yónni jël na jël na sëñ Baara yób yóbbu ko def soxna Faati Ba wala soxna mooy mooy maam suñ Moodu Maamun ci wàllum doom daal di daal di di leen jox leen juróom-ñaari gàtt lañ wax juróom-ñaari gàtt ya ya la suñ bi bi yónnee leen ngir ngir ngir ñoo ma man di leen kortal ñu koy naan lu ci mën di am yooyee yooyee yooyee yooyee yu am solo la ci démb démb démb ju tedd la waaye nag sëñ bi kon Cheikh Moustapha ko am jàngam formation tam tam leen jàng alxuraan moom suñ farlu ci ak suñu Omar Mbakke Gelongal waaye suñ cër muy tey ci loxo sëñ bi sëñ bi leen woo ca Daaru Rahmaan ci kër suñ cër tey daal leen fay daaw am na am na dimb moom bu nekkoon foofee dafa leen sëñ bi daaw di leen jàngal ba ba ca jour classe yi sëñ bi bi dee dem Jolof mu daal di jël suñ Omar Mbakke di keroog wala boog suñu ab tundam ab xambaan mu daal di mu daal di yóbbu suñ soxla suñ fan ba kibaar yi ba muy ba mu fay bàyyi ko jëm ci dëkk bi dal leen di teg ci loxol Mouhamadou Thiam waaw kooku kooku lu am solo sëñ bi wax na ko moom Thiam ne ne ko ne ko bu ñu tilim te te te te bu ñu bun la wala bu ñu tilim te bu ñu bun mooy mooy kon nañuy sët ba noppi di lekk lekk lekk bu baax waaw lu am solo la Cheikh Moustapha kon nekk na foofu dal di bind kaamil monsieur Mouhamed Fadel Cheikh Moustapha bind kaamil ba moom Thierno daal di koy yónni sëñ bi ci géej ga ci Gabon moom la moom la Cheikh Abdoulaye Ndour yóbbu woon moom la sëñ bi jëkk a gis ci kaamilu wakkaram yi bu nekkee di jàng ca ca moom ca noonu soxna daana dem ca sëñ sëñ Mor Jaara dem ko noonu la noonu la noonu la fa nekkee woon diggante moom ca noonu sëñ Mor Jaara ba sëñ bi sëñ bi ñu gisi ci ci kii sëñ bi nag ba ñu ba ñu bisee ci ci géej gi sëñ bi yóbbu na leen ci seen jamono yóbbu na leen gànnaar wala bokk ñoom fekk fekk fekk dañ ko gànnaar bañ ko fekk bañ ko fekkee gànnaar moom si mo Cheikh Mouhamadou Moustapha Cheikh Mouhamadou Dar Fadal suñu bi leen tërbi tërbi gu metti ga moom si Omar Gelongal ak ak ak ak ak ak seen bokk ma sëñ bi wax na suñ ko nangal nee na nee na tër bi tër bi bu métti lañ leen bon tër tër bi boobu suñ leen waxoon ne chambre ak ak seen ak chambre suba ak yéen ñoom bu fi ñëw te ni yéen yéen bokk leen ci xam ne ñuy tër bi di bind ak wax na leen nag di dongo yi def lépp def leen ko lépp te bu leen yàqal seen naaf liggéey seen awraat yi waaye tërbiye gu gu metti daal la gu metti la kon Cheikh Moustapha kon ak Cheikh Mouhamadou Fadel la kon kon sëñ bi nag daal leen di daal leen di daal leen di di di di daf ci boppam bokk na ca bokk na ca na ca lam lam leen dénkoon mu wax Cheikh Moustapha ne ne ko daa doon sa niyatan la daa kulli layaat bay neexaa tëj lu aqdi layaat bul bul fàtte yéene ci dara ndax loolu loolu de dana dana bijji nga nga ñu xewal naa ko adim xiyaama lay doon kese bi boobu tilaawoo ti doon kese bi da ko naa nanga saxoo taxu guddi ci bi nga tàyyal te na nga na nga raxase salaam nañ ci danga alxuraan ko farra min majalisil xufóori inil xufóola mu suñu ne ne kon na nga sori jataay yi sàggante yi ndax sàggante kat mën naa tax suux wala si billaah bu daan sala xiibati na toog bi sukkur wa dikra rabbika lul karimi sukkur mu ne ko mu ne ko tilimi mi jaww di na na nga ko na nga ko setale ci sant yàlla ak di tudd si sa borom bi kon wi li naf si ga xuyóoran waliman raaytahu yatlubuha kulla zaman na nga yéene fi yow ñee sa bopp yéene ko képp ko koy sàkku ci jamono ju ne wa fi lazi yóbbu ilaa xakaral xabi wan si waa ma lay si yóbbu xabi kon na nga na ngay gërëm loolu li nga xam ne na ngay sàkku li nga xam ne su ma gërëm gërëm na ko te bàyyi sawaan ba waaw loolu kon kon kon Cheikh Moustapha ne ne foofa ci ci tënk Cheikh Moustapha leetar ba ba mu bindoon. bom bi doon sëñ ma sàmba di ko laaj laaj laajam bu rëy ba qul ida anala allahu al abda tawakkulan asmiyan xata yatluba al munajata minhu fama fama yafalu bi nabi salallahu alayhi wa sallam a yakunu tarjumanan baynahuma am yakunu al amru baynahu wa bayna allahi min duni nabiyi salallahu alayhi wa sallam fi hada wa huwa wasilatu al ibadi ila al mulki dayan am yakunu nabiyu salallahu alayhi wa sallam xaadiran ويجاوزه إليه بالمناجاة أفتنا في هذا بما عندك عاجلا عاجلا عاجلا سبحانه ne ko yàlla maye jaam bi wakkilu gu dogu muy soxla woo deyaale ak boroomam nu muy def yonent bi aleyhi salaatu wa salaam ndax yonent bi aleyhi salaam mooy nekk tarjumaan ja mooy interprète bi dox seen diggante yéen làppatoo wala wala moom si moom di di moom di tam borom rekk lay doon ci lu yonent bi aleyhi salaam di ko teewe te te yonent bi aleyhi salaam mooy mooy kër kiraanu jaam jëm jëm ci seen borom wala intimation day teew mu mu jéggi ko fa deel ak boromam waaye ubbi ñu waay yéen lañ ci xam ci loolu Cheikh Samba mu tëdd ma am nga da koy tontu daal di ne ko amal jawaabu fi dalika fal abdu ida wahabahu llahu taala tawakkulan asmiyan laa yaxlu min anil amrayni ne ko ne ko tontu lay mooy suñu borom bu dee daa may jaam bi wakkiilu ko dogo benn li la ci ñaar yi lay doon imaan yakuna saalikan aw aarifa moo xam mu nekk saalik ko koy soog a sóobu yoon wala mu nekk aarif billahi ko ko àgg fi fi kaana saalika taaliba alwusula ila allahi tabaraka wa taala bil munajat xeddati jalaalihi wa qudsi muhridan an habibihi sallallahu alayhi wa sallam turida wal ayna wa sudda alayhi turuq wal abwaab ورد بعسى الأدب إلى استبل الدواب إن الله تبارك وتعالى لا يقبل شيئا قل أو جل إلا به صلى الله عليه وسلم ولا ينال عبد قربا من الله تبارك وتعالى إلا بواسطته صلى الله عليه وسلم mu ne ko ah bu dee kuy sareeg leen moom buy ndox jëm ci yàlla di deyale moom ci xaddatu xusi yi moom yàlla daal di du mooy yàlla tere mooy si billaa sallallahu alayhi wa sallam ko tudde ko def na ko dàq bu defee nañu rëbb ko asudut ali tubax wala baab ñu tëj buntu yëpp ci moom si billaa warut bi basal adabi yestula do ab daal koy dóor dàq koy yóbbu ko ca géttug bàyyi ma yee yàlla du nangu dara moo xam lu lu lu tuuti la wala lu màgg la lu dul mu nga jaarale ko ci yonent bi aleyhi salaatu wa salaam jaam bi du am ak jege ci yàlla lu may da mu ko amee ci ci kerkaanu sallallahu alayhi wa sallam kooku mooy sarik bi bi kaana wa abdul aarifa alwaasila la ci yara nabi sallallahu alayhi wa sallam bi aynihi yaqasatan bu dee ki nga xam dàgg ci yàlla bay ki ci dimanche salaam ci ay bëtam yaqasatan ji dul ay nelaw wayete kallama maahu xaysa muy wax ak moom saa bu ko neexee way yaxduru maahu xiina sha muy teew fa moom saa su ko soobee wa yushaahidu llah tabaaraka taala bi ayni l-mushahada muy gis yàlla ci aynul mushahada fii kulli xaal xaal yëpp yaqamu baynahu wa bayna nabi alayhi salaam fil munaaja dana dana am ci diggante moom ak yonent bi salaam ci diyaale maa laa yaalamuhu illa llah tabaaraka wa taala mu lu sew a sew loo xam ne kenn du ko xam ko dul yàlla wala yajuusu kashfuhu kenn du ko mën a wuññi nag li ma xaraja min daa'irati xaqi ndax loolu dafa génn ci xaqiqa wa sharia fala lubsa fi dalika loolu amulant loolu moom beneen daayira la bu gën a kawe xaqiqa sharia loolu kon kiimaan kiimaan la mu ne mu ne qaala lahu taala wa yaxluqu ma la taalamuun yàlla nee na danaa bind lu lu lu ngeen xamut kon kon si am suba kon ndono lam ndono seen seen duwaay kon ba ca loolu seen si si si ndax waxoon ne ku ku ma si si doy jaay waxaan mooy la wax lu ko ma kon kon kon Cheikh Moussa boobu si si si si Cheikh Moussa daa leen tan bii ak yeete rubbama waqaa kasiirun lil kumali min al xawaariqi wal ajaa'ibi wal garaa'ibi wa naxwi dalika kal ilhaamaati wal kushafaati wal maarif baraana lu muy lu muy amal lu muy am ñeel gur yàlla yu mag ya ci ay kawtéef ak kiimtaan ak lu yéeme. lu mel ne ilham yi yi keewal yeeg kusafaat yi wuñ ñi leen xam-xam yi wuñ ñi leen mbir yi ak xam-xam yi ñu sotti ci leen xoya yaa tarjumaan baynahum ci lu dul nag muy am interprète mu muy am lappatoo seen diggante ak seen borom wala mu jaw si tiim il temps la loolu ak loolu ñu koy jéggil wala mu xaadatum bihi sallallahu alayhi wa sallam ci loolu ñuy ñuy teewlu yéen alayhi salaam nga xam ne nee na yàlla la ñuy waxal direct maal iiraani bi an al amra lam yëkkun wala yëkkunu min duni bi saa salaam te te mu ne mbir bi kat nag nekkul te du nekk mukk ci lu dul yonent bi alayhi salaatu wasalaam nekk ca doon ruug loola lan allah tabaraka wa taala yafalu ma yashaau wa yaxkumu ma yurid yàlla nag moomay def lu ko soob te atten la lam bëgg wala yukrimu ahadan minhum bi tilka illa bi barakaati alayhi salaam yàlla du teral kenn ci ñooñu ci teraanga yooyu lu may ji barke bu yonent bi alayhi salaatu wasalaam loolu kon loolu kon leer na ne kon si suba kon yitte ja kawe na dayoo ba kawe na wax lu ko maanaam maanaam tax na kon kon muy tënku tënku ak ak dundam bàyyi dina mag sekere ma kon noonu ko suñu Mustapha mu sàmba ci waxee ku dem bay deyaaleeg yàlla ci lu dul wasita te te kooka ci ko suñu Mustapha waxee kooka mooy koo xam ne day gis Yonent bi alayhi salaatu wasalaam yàqasatan di wax ak moom saa su ko soobee kooka kooka kooka mooy Cheikh Moustapha loolu lu kawe la kawe na lool da nga fii da da nga fi jàngatiwaat lu am solo wala boog man ma dem ba jàngati ko fi mooy Cheikh Moustapha xalifa sëñ Bamba bu mag boobu am ab gàtt di ko yónnee sëñ Massamba di ko di ko ko laaj xam ne tekat boobaa kat boobaa kat Cheikh Moustapha yi kilifaam faam ci aada waaye bati nag aada bu ko ñoom xoolal xoolal xoolal sëñ Massamba yi ni mu xamee dayoom ba dayoom Cheikh Moustapha ba xoolal xoolal ni mu xamee ne yaxluqu maa laa ta'lamuun la loolu kon kon dayoo bu kawe na nga xam ne ne kon Cheikh Moustapha kon delloo na delloo na na sëñ Massamba la moom sëñ Massamba delloo ko la mu am waaw lu am solo loolu loolu jikko ju tëdd la ci ñaar ñi kon kon loolu lu kon lu am solo la ci Cheikh Moustapha bu ñu waxee ci ci melokaanam ya melukaani Sëriñ Mustafaa jëmm ji Sëriñ Mustafaa melukaan yi dafa dafa dafa guddoon te newul firaw newul siraw lu guddut lool ba ëpp diggante yaari waggam yee dafa yaatu dox ga gudd ba noppi nekk lu tedd lu dund boo kanam nga xaw a mel ne dafa dafa nekk musatiilu nga xam ne kanam gi dafa gudd bakkan ba génn te yamoo lool nga xamante ne rëyu tuutut ba noppi ni ju ni ni june tuuti ñu ko waxati noppam ya dafa dafa rëy ba noppi te ëpput kawar ga dafa weer dafa tuñam ya dafa dafa jiboon jib gu jëkk jib gu jëkk jib gu jëkk nga xam ne bu bu bu kebelee ñaari tuñ yi jib ji du feeñ su su ko ubbee mu feeñ rafet lool kon kon jëpp ba jëba rëdd yooyee dara feeñ nga xam ne Cheikh Moustapha dafa Cheikh Moustapha dafa amutoon mboo mbóosóor xam ne nga xam ne day mel dafa ñëgg maa ngi seetlu ne sama bàyyi da ko ñiru woon ñiru ñiru ba ci loolu sax moom da ko ñiru woon kiimaan la ne mooñ gaag kiimaan la saxoon jéegi rëdd ya dara feeñ wax wax tuuti wu ne ndax dafa néewoon mbuusu moom sama bàyyi kaalaam gi soo soo rek kaalaw la kaalaw bu ko bu ko defee day sëgg siggi daal di mooñ buy dox dox dox bu dox bu dëgër waaye nag nànk lay dox dafa nekkoon ku ku leeru làmmiñ waaye ye buy wax wax ja day set wicc te te kàddu ga nekk ci diggante bi suufe wut lool kay wut lool bu dee jikkoom yi yi nag moom ku dëgg woon la boroom xam-xam la woon bu ñaw moo ko sëñ sama sama faale sëñ bi ca njaareem du dugal nañu ca kàggoom nga ni leen dem leen dem leen téere bu ne ne neen ko ubbi seen bët dal ci bind ci bind ba da ca des ba leen ba leen koom man waaye ka waykat la woon ku sàmm la woon jaam ko yàlla la woon ku jàmbaare la woon day wéy du taxaw ku wattu woon borom bi la ku set wëcc ci biir bitti ku sellal ku jeew ku xereñ ku xay mooy civilisé lool mu yére yi bu koy sol daraa yi day day cëkk turki daraa bi muy sol ci biir biir mooy xaw a génn tuuti daraa ja te tegu ci ci kawam mu buy taxaw day taxaw sikk mu jub kocc kocc orisi original dëgg la ku ku ku ku cosaane la ci léppam ku ku topp yoon wala ku ku tawe ku tëdd Cheikh Moustapha mu tëdd ma la ko mag ñu laa wooyee Cheikh Moustapha mu tëdd ma kuy laa biir ñëpp nag ñëpp ñu muy kër bi yaag bokkam yaag ñëpp rek soxna may mii fi mujj la ma waxoon ne leen sëñ bi mu ngi koy mu ngi koy ñaan lu mu jëndee takkaay sëñ jox ko Cheikh Moustapha jox ko noppi ne ne ko nag may mun a doomi sëñ Bamba takkaayam mooy jub dégg nga ko de ku tëddoon adduna la sama maam aminte nee na taab sëñ Mor Joor nee na ma tey daana maye maye maye ba sànke bi bi koy yiir ci ci lal bi sax da koy da koy dagg joxe ko mooy jamono yi trente-neuf ci ci ci quarante-cinq ci guerre trois bi yàlla yàlla musal ci sur loolu ku jege woon yàlla la ndax di nga di nga noo ko suñu suñu suñu sàmba waxee daraje boobu yaxlu ko maanaam taala moo noonu la la doon woon ci ca bàyyi mu tëdd ba ku sax woon jaamu mu yàlla la wa wax nañ ne vingt-sept ba quarante-cinq gëmul bët nga xam ne saa bu musaa sonn alxuraan lay noppaloo wax ne ne mujj gi to suñu caatu ko andil ab am seen tubaab tubaab benn dara dul ko de waaye xanaa dara ñëw mu ne waaw ba ko baax ka fanaane tubaab ba tubaab de ak tey fët li ko moom fu ma gëm gëmee bët mu ne waaw ndax bu gëmee bët yaa taxu seen tuna wala naw melokaanu yenn borom baax saa bu nelawoo bu nelawee yëf yi yàqu loolu moom it lu am solo la ci kuy xalifa ku nekk ba ba ba xew ku amoon siyaasa xasifa doxaleen wu wu sell politique bu jub kenn ku nekk daray wàcce wàcce sa wàcc waay ku amoon xorom la nag ku amoon xorom la jëmm ji daa am xorom wax ja am xorom jëf ji am xorom doxin wu lépp am xorom borom yi tijju kawe la woon su fekkee tigi la woon ku xam yàlla la woon dëgg ku sawar tigi daaraa dund dund gaa yu baaxee ak a mënoon nag teral gan ku maandu woon ku sell daana wax naan na sii la ko ko ko rek la woon daana wax naan ni may ni may ànd ak sama bokk yi nga xanaa lu ma am jox leen lu ma xam wax leen bëri nag la ñu ko am waxaañe da ko mokkaloon lool man man koo man koo jàng jàngin yu kawee yu sell ya daana ko daal alxaan dara bànneexoo ak ak dund xas yi daraa daraa joxe kon kon ba jeexal rek fam ci ci ci waa kër sëñ bi lépp moo leen ku ku ku ku lépp moo leen ko yoroon daa daa leen teral teral bay jël mbubbam mi di leen ko jox ñu koy fompoo joxe ñoom ba napp mu taral leen mbubbam ñu koy fompoo ngir wàcc ga gu wàcc ci ci ñoom kon kon daana fu mu masaa nekk mooy doon imaam yi waxtu yi safari yi watir xaalis moo moo daa jiite jàkka ja fu mu masaa nekk dana am jàkk mooy daa jàngaleel boppam boo ànd ak ànd ak ay jàngaleelkat daana daana jàpp loolu loo gaa yi ci xaqiqa sama baay nee na mas naa ñëw ci jenn daara ci daara yu bay dem daan ne mbaa xam ngeen ne nijaay si islam awee ci sama digg bopp bi la awee ci seen digg bopp bi nee na boobu am na fa ganu tukulóor mu daal di xaacu daal di jébbalu bokk na ci lam daa wax aleykum bi shariati wal xaqiqa ina sharia ina shariata simaamul amaani fi dunia wal xaqiqa tawqut leen fi axira ay gaa yi mooy leen ci sharia ak ak ak xaqiqa sharia de mooy ci la ñu mën a mucce day ji waaye xaqiqa na ci la ñu mucce àlaxira daana leen soññ lool ci ci julli juróom yi mas naa fekk kenn ci gaa yu baax yi da takkusaan ci ci tool yi mu ne ko julli nga mu ne ko déet dama bëgg na nekk boobu àggal sama sama wàll mu ne ko déet sama borom mi bind bind la moo la ko digal digal ma ko kon dama julli ji lu lu kimtaane la lu kimtaane la waaw kimtaane la lu kimtaane la buñ dee ci xool doxalin wax ba tey ci tënk ci ci ci ci tënk moo waa kër suñ Bàmba yëpp waa barsàq ya ni mu leen toppatoo woon boo leen yoo leen si seen lépp rakkam yëpp kenn ku nekk ku war a ku war a jàng moo lay jàngal moo lay yóbbu nga jàngi nañ jël si sëñ Saaliw rek sëñ Saaliw da ko bi mu jàngee xam-xam bu soxla xam-xam bu ñu wax géographie sëñ bi sëñ soit ab tukulóor la la la andi ca Fuuta bu bu jàng géographie géographie ñu koy fay di ko bayalu tool muy jàngal Seex Saaliw kenn ku ne ci ci ci ñoom yóbbu na la wutal la ay dëkk yoo xam ne xamale la ak ñoom daal dina leen lépp lu ngeen di joxeete lu lu jëm ci man sama rakk ngi nii jox leen ko la la la moo tax mag ñi daa wax naan tabe dëgg mooy tabe ci daraja Seex Musaa tabe woon ci daraja soxna yi sëñ bi waa basaq yi moo leen yoroon yiir leen ci lépp lépp rek nga xam ne nga xam ne kenn soxla su soxlawul jooy dara wala ngay dem fenn liggéeyam bu mag ba moo indi sëñ mag bi fii ci Touba yëkkati ju jumaa ji ba mu weesu na na- naax saay loolu mu doon liggéey bu mag a mag ci biir liggéey bu booba xëcc raay bi booba jafe na raay bi andi ko ba Tuubaa ndax bagage yi nga xam ne moo war a ye- ñu tabax jumaa ji bagage yu diis la ci ab raay rek la mën a ndax booba tën yi néew fi lu ama am solo yoo xam ne ay mbir la yu am solo Tuubaa Tuubaa Tuubaa ci ñaari fan ca weeru koré wa 1350 ci ci gàddaay gi 1932 9 février 1932 ci lañ nag tàmbali nag tàmbali nag liggéey ba mooy lu ama am solo Cheikh Mouhamad al Fadal teew na Cheikh Mouhamad Bachir teew na Cheikh Mouhamad Bara teew na Cheikh Mouhamad Samba teew na Cheikh Ahmad Duba teew na Cheikh Mouhamad Samba Diop Alkoki teew na nga xam ne Cheikh Mouhamad Samba Diop moom moo fa teewaloon maam Thierno boobu maam Thierno ñëwul Cheikh Matar Binta Lo Cheikh Balla Fally Dieng Cheikh Moussa ñu bëree bëree bëri te teew na man man man mii sama maam di sa sëñ Manaar teewut booba ndax ndax sama soxna waxoon na ko invitation d'honneur yi ci la bokkoon waaye suñ Samba Astou ne ko toogal ba ba ba am addiya sama sama bàyyi nee na ginnaaw ba seen Cheikh Moustapha nee na ko méttiwul na ko ne ko ah yaakaaroon na lu lu ma la wax nga nga def ko ndax daal météo na ko ndax bëggoon na lool teraanga la ji tol na noonu mu mu teewe ko waaw kon kon jumaa ja taxaw na ñu ngi koy liggéey ba baraase na digg naa ci suñu Modou Mamoun Niang mu wax ne Cheikh Moussa bi muy dem ba ne fi lépp lépp lépp lu war a raaseel lu war a lu war a sotti jumaa ji lépp boobu teew na nee na nee na nee na nee na bu bu bërutoon booba guerre bi nee na ko ne kon lépp noppi kon Cheikh Moustapha Gokk mu tedd ma mu mat ma mu sell ma sama baay daana nettali ci moom lu lu mu fonkoon lool dénkaane la Cheikh Moustapha daa saxoo di ko dénkaane nee na mag mag ñi day li ngeen gëm ak a baax sëñ Bamba waaye waaye man Modou Moustapha Diop ma doy daal di ne mooy sama baay te dégg naa ngërëm waaye man Diop ma doy loolu kon lu am solo la buy tënku Cheikh Moustapha lu man di am lu man di am lu man di am lu man di am Diop ma doy asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakatuh waaw kay ñu siyaare ñëpp rek kon nag ci magal gu tëdd googu ñu fàttali ko ku baax kooku Cheikh Moustapha di di ko siyaare kon xalifaam bi muy muy sëñ Ahmadul Muxtaar di ko ñaanal yàlla boole ñu yàggal fi boole ñu wéral ak magam ju ju jooju muy Cheikh Mamadou Muntaxa al xalifa am lil lil muridiyya yàlla na yàlla yónni suñu mbir saahirin batin teg ñu ci ca tànku kookee muy weex lu ko ma tax ma sha Allah sama sama